nga conseillé ko mu liggéey rek liggéey rek parce que tey jii liggéey mooy jëmale nit euh, fu mu teg tànkam foofu tey xam te liggéey waaw ba xam naa franchement waaw ñun ñaan nañu liggéey bu leen kenn jaxase mais bu doon wax daal surtout daal li ko sa bu la woowee tey jii nii mooy def mooy daal da ngay dem wala xaw ma nag soit dañuy liggéey parce que dañuy lépp ci liggéey la rek képp ku la woo si liggéey moom liggéey la wala yéen ñee xool loo leen teg ba liggéey liggéey la rek liggéey liggéey yaa xool si la arrangé nga def ko yow boobu leen leeral la moom mooy leeral dama jox dama leen laaj mais ngeen sax lu ma leen mën a wax mooy sama jigéen la def suñuy jigéen ñi jigéen def suñuy jigéen suñuy jigéen lañ jigéen def suñuy yaay lañ bokk da ngay dégg dafa sax loolu bu fekkee loolu comme ça amul benn temps de concurrence concurrence bu benn bi gaa fa benn parce que dégg nañu ñu naan kii waaw dama la may dara ci seen waaye gis nga temps yi nga dégg grave boo xam ne exceptionnel Sénégal yëpp sëñ bi mu génnee Sénégal yi bëgg nañ ko te accueillir nañ ko franchement den wax ngeen dem xoole ko sama page bi boo tapee dal la di nga gis foofu noonu nga dem si dal mu ne nag benn affaire moo dugg la ci ay génn ba mais bon damaa jëmee benn ex ni comme ça mu ne woon ci nga dam sama yàlla gi doom sama gërëm ba may gars yi ñu dem découvrir loolu lan ngeen découvrir loolu la ne comprendre ku ne ku exceptionnel wax naa leen c' est du peuple l' artiste boo xam ne c' est l' artiste le de tous les artistes écoutez Mbaye Daal c' mieux sur Daal